salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu leen nuyu waaye dina wax ngeen waat seen émission boo xam ne saa waxtu bi ñëwee jotee rek ngeen bàyyi lu ngeen di def yëpp xaar oustaz 4G ak oustaz Guédé ñëw ngeen seen émission lan ñu ne tontu bataaxal tey nag ñu di waxtaanee loo xam ne fa yaatu mi ngi toj dëkk bi ku nekk yaa ngi kër kër di naaw di réer gémmiñ ñi di yaatal bakkan ñi di réer biir ndax bës oustaz. maa ngi lay nuyu. Eh, oustaz Guédé maa ngi lay fay di am mbégte ak kontaan te feggoowaat ak yow eh, ngay liggéey liggéey bu am solo di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy topp eh, ci tontu bataaxal di am mbégte ak kontante boo xam ni bu pataambëf la jàkkaarloog ñoom tabarkalla tabarkalla di la nuyuwaat di la jox sa wàccuwaay waaw nga nekk oustaz bu bu bu bu nekk bu mën li muy def. Euh, xarañ lool ci wàllu oustaz maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf bu baax oustaz coow li bari na ku nekk yaa ngi def si yëf di fërël fërël ñii di naaw ñii di rey seen yaay neex am bës ñii di di di wujjanteeg seen yaay ngir am bës ñii di nangu seen gël copain pour am bës lan ngay wax oustaz si bës. Euh, oustaz Guédé génnaat nga fu nooy népp mel ni xaal. damaa xam lu nooy nag. Euh, lépp baax na kàccoor nga eh, génnaat nga fu neex boo xam ni eh, li naan fi nga fi nga wokk foofoo xasan delloo fa sab loxo <laughs> xam nga bës nit ñee ko créé mais bës du dara eh, ndax bu bës doon dara mbaam xuux kenn ëpp ko bës mbaam xuux laa la wax kenn ëpp ko bës oustaz nan la mbaam xuux amee bës ndax begam bi ni mu guddee am ban rab moo ci gudd beg fu mu jaar ñu topp ko. Mhm. moom mbaam xuux ndax beeg bu gudd. pour mhm. man xet gi sax moo tax kay wax. ak xeeñaayam mais lépp ci bës la. Mhm. fu mu jaar këree na bës moom mbaam pour wax la képp kuy uti bës. waaw yaag mbaam xuux yéen a yéen a yam benn atte. ci xeeñ. ci xunnaaral. kon ñoom ñoom kon ñoo utkati yi kon war na noo xam ni moo ñoo mbaam xuux ñoo yam eh, mais leer na mbaam xuux kuy ut bu bës rek yaag mbaam xuux yéen a yam. bës du lu nuy créer. Mhm. bës kenn du ko créer. Mhm. bës kenn du ko créer. oustaz gis naa fi benn woykat boo xam ne bëgg bës moo tax kenn xamul lu mooy lambar lambar. lambar lambar mooy lambar lambar <laughs> ci bëgg bës. lambar lambar mooy taxawaalu. Mhm. <laughs> fekkee yow léegi taxawaalu ngay way. man da où va Sénégal. où fu réew mi jëm. nit sax dina dina dina dem ci kër ñu way ki kii jarul recevoir ndax day taxawaalu mm. yow nga way taxawal <laughs> comme mom mom way kat bi taxawal kat la taxaw ok mais xam ngeen ni dina yew ba yew bopam mm. tak bopam rib mm. lambar lambar <laughs> kon mom bu bëggee dégg dëgg xawma fo nek xawma xaw ni xol ngi xol yow taxawal kat nga yow mom way lambar lambar lambar pour mu leer astafur lambar lambar astafur astafur ustaz fo kay taf man ku ma waxoo lii am na ma ne déedéet ma mosuma xam ne lii. nit sañ na kaa def nit. ba jàmm la rek. oustaz dama xam nan nga mën a waxtaanee nit si njekk ak teraanga mu bàyyi kër ndeyam ak kër baayam fekk la sa appartement. Eh. nga waxtaan ak moom ba jël xelub xale bi. nga futti ko ba mu set. futtee ko ba mu set. man yaakaar nekk ngay def nga si nekk di ko di ko di ko enregistré. Eh, kawteef. te dee na xale bi enregistré xale partage ko. partagé ko ndax bëgg bës. mais loolu loolu loolu c'est di catastrophe. partagé na noonu ba mu ñamee xale bi. xale bi dafa xees wala dafa dafa ñuul. defe defuñu fi teen de waaye ñam xale bi daal partagé na ko. man kay bala may ñëw ci ñam gi dafa xees wala dafa ñuul laa bëgg a xam. ah nee na dafa dafa xees. Eh, def na lu def na lu am solo. ñam. <laughs> def na ah mais ki mu ko defal xale bu xees. xam nga xees. si bëgg bës. <laughs> oustaz Guédé lii moo tax ma faa la. ñam moom neex na ñëpp xam na ni ñam. ñam dafa neex mooy nu ko ñame mo mo mo mo metti na ñam xale bi bàyyi xale bi ñibi waye nga ñam xale bi enregistré xale bi partager ñam xale xam nga ñam day top nit ki day bëgg say yi koy kii di ko wat di déglu bopam di déglu boppam jàppal fële sa loxo tel fii xam nga yoy yep day am solo nga koy wat nga wax ndur na deug de eh, gis nga kon eh. oustaz gëre yaa ma gën xam sax li ngay laaj <laughs> yaa ma gën a xam ndax. sama xel a ngi sax yàgg nga ci. mun na ni sama xel a ngi sax. ndeysaan. oustaz lan moo tax léegi góor ñi kenn mun leen a xàmmee ak jigéen ñi mooy le le deux gars yi nekk ci Chine bi naan daf daf daf daf daf daf daf ñu ne ba seen si si nekk fa naan dafa dafa dafa ay néew fi ne dan na ko gën a xam. xam nga li ma waxoon rek. hoo hóohóo safara ngay xam lépp dëgg la moo tax nga naan hóohóo fii hóohóo teel na fii yuuxu teel na gis naa leen maa ngi leen di gis ba ñu naan man eh, eh, eh, xam nga ni ñu koy waxee ndax man kii ma ñu naan hóohóo naan ak weer dugg ci almeer di sinap mu leer ni ki ngay sinap bis dina ñëw yow nga tëdd fa bu fekkoon sax da lay jéggi mais bis dina ñuy taxañ la fatam patamee la gas ba mu xóot dugal la ci toggi ceeb lekk. waaw ma oustaz sax man sax bañu ma ku dugg si ay armeer di di sina man bañu loolu waaye saw saw li siy sinab dooti. Eh, <laughs> yaa ngi may fàttali sinabu kooka. xale bu góor ba bu sinaboon. waaw. jour <laughs> bu laa xam ne ndeke am na góor ñoo xam ne dañoo góoree. <laughs> bi ma gisee mu sinab. dama ni ndax lii ci pantalon la nekk. dama ni ndax lii ci pantalon la nekk. ca la nekk de la nekk Eh, mais ndax eh, eh, non synap boobu mosuma ko gis. est-ce que xam nga oustaz yenn saa nga gis nit dugg ci kenkaari jënd fil la fer nga yaakaar daa am lu muy takk. moom lay takk mm. man bi ma gisee waa ji synap dama ni ndeke lii mos na nekk ci tubéy. mosuma mm. <laughs> gis lu mel noonu. Ah. mais daal synap daa am fu ñu koy defee ak fu ko warta defee mais nag Sénégal loolu lañ xamul ràññeewuñu xam nga nit ki da nga war a ràññee. Mm. li baax li bon fi ko war a defee temps bi mais yow la neex synap da muus da lay romb sax nga synap. gis naa gis naa koo xam ne da doon dox di sinap ba dugg ci poos xam nga loolu. baaxul erreur mënu weesu loolu. bu gaañu woon moo rey boppam. mais mais kenn mënu ko génne fa la des. daa mujjee dee. daa mujjee faa waaw kay waaw kay loolu sax baax na jërëjëf oustaz lu ñu ca réewloon si ay waxtu jeex na tàkk bu mu toll nii mbokk nii lay demee saa su nekk si oustaz euh, Guédé ànd seeg oustaz Kante. ñu def ñaan cal njaatee cal njaate jaan gamul loxo du ko dindi rëkk rey na si ñeel waaye loxo mucc sa ku bëgg a yuut ndëgg dee dëgër ku bëgg a ràbb tàlli ku bëgg ku duma da tooñ ko la man masira sa jee Dakar sa béngal ga mbaw si ndax ndoo waraan Touré borom ngeen moom léegi mun na tëb waaye fu mu dal moo koy jaxatu